Ayo, gue boleh. voilà je pense que lii moom leer na leer na li nekkatul jaay doole li yebel ak maa tey na wax ji leer dama ne dee su jotee ku deewul doo gor doo doomu gor man askanu Dakar lay waxal ndawu Dakar yi lay waxal président Macky Sall nag dañ ko duma ay duma yu metti ci élection locale yi doo nañ ko presque de cent mille voix 2017 ba mu ñuy waaxu ci ay ordre de mission mu jàll bii nee na comme mënutul sàcc. nee day jéem a xool naka dañuy forclos dama ne suñu list juróom-ñaari ñi dafa nekk les deux dernières personnes ñoom ñoo jël ñoom ci seen responsabilité ñu ne ñoom dañuy désister comme démb nu Madiop Diop maire de Grand Yoff waxee day désister loolu yoon moo ko may candidat bu nekk te yoon nee na am nañ ba tey ba minuit ku mu neex mën nga désister te mandataire bi am na droit changer la ñooñu bind nañu seen lettre de désistement ñu indi ko. ñoom ñu jël lettre de désistement yi ñu ne leen nag ñaar yi ñooy remplacer ñu ne ñoom ñoo lanka ñoo bañ duñ ko jël. malgré les ñu ne ma ne nag te ñoom ñoo tooñ ñoom ñoo jaxase liste bi. ñoom la ñoom ñoo jël liste bi lu Déthié Fall euh, déposé woon pour le le compte de Yewwi Askan Wi département Dakar ñu jël suñu liste jaxase suñu liste ñu changé de liste yi nag loi may ñu ba tey minuit ñu nekk ñoom duñu jël comme duñu jël. je demande au peuple de Dakar de se mobiliser wax ji mën na ñàkk maintenant comme Macky Sall ne na Yewwi Askan Wi du bokk nag maa ngi koy jox le 31 juillet dina xam est-ce que dëkk bi ay na ay ay ay yaafus ñoo fi yeew wala ay ragal yeewi askan Dakar du ñu bokk kenn du bokk na wax ci leer nañ dem.